mbokku internet Thiès Info salaamaaleykum dal leen nag jàmm ci xibaar yi ci thiesinfo.com bokk nag ci li ci gën a fës dañu koy door rek euh, Moustapha Diop jëwriñ ji ñu dénk wàllu industrie amaloon na tukkib nemmeeku euh, ci euh, nouvelle société textile du Sénégal bu Ibrahima Makodou Fall di fay commandé lu toll ak 200000 masques moom Moustapha Diop mu daal di rafetlu taxawaay buy nga xam ne rek Ibrahima Makodou am na ko foofee ca NSTS te mu jàpp ne xëy na lii di NSTS lu suqali la Ibrahima Kodou Fall daal di rafetlu taxawaay bi jëwriñ ji am Euh, ci nouvelle société textile du Sénégal dellu wax xam la ne nouvelle société textile du Sénégal euh, dina euh, taxaw tembe ngir rek jàppale nu Thiès maire bu Thiès ville Talla Sylla ginnaaw bi mu rafetloo mbir mu ne mel leneen la mu ca dolli mooy de lii di nouvelle société textile du Sénégal bokk na xëy na ci li nga xam ne rek moom moo war a taxaw génne Thiès ci guuta gi mu dëggu jëm nag ci wàllu développement loole daañu ci ñëw nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi xam nga kuréel gi nga xam ne moo ëmb chauffeur yi euh, muy euh, regroupement des chauffeurs jamono ji nag euh, mer ba futtu la ñu def la ko waral mooy xëy na gisuñu seen bopp ci ndimbal yi jógee ci état naaw bi nga xam ne nag weer ak lu tega ngi nii ñu daal di nag taxawal lii di transport interurbain loolu dinañ ci dikk nu mu yaatoo ci biir xibaar yi ñu jeexalee xibaar yi fële ca R100 jàpp nag Daaru Salaam fële sa Sine foofe nag askan fa nekk daanaka def nañu benn say benn dànk ngir jàmmarloo lii di feebaru coronavirus Euh, foofee ca diwaanu r mbokk yi ñuy àddoo fii ci marché central lile moo di ponk xibaar yi ne suut ñu dëkk ak yéen ci faram-fàcce gi. ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beek seen programme Thiès info point com ni ñu ko waxee ci ponk xibaar yi euh, jëwriñ di ñu dénk wàllu industrie Moustapha Diop amaloon na tukkib nemmeeku ci NSS nouvelle société textile du Sénégal bu Ibrahima Kodou Fall foofe nag mu daal di fay commandé lu tollook 200 000 masques daal di nag dellu rafetlu taxawaay bi nga xam ne Ibrahima Kodou Fall am na ko Euh, ci euh, société bile waaye itam leneen lim ci dolli muy euh, taxaw ak jàppale gi mu fas yéene jàppale lii di nouvelle société textile du Sénégal ay doom Adama Ndiaye moo ko taataa ñu teewlu ko. am nañu mbégte mu rëy ñëw fii tey ci NSTS jaaroon nañ fi ñëw jaarat fi tey pour visiter si l'usine de la NSTS tey nag visite bi dafa nekk visite bu particulier wuuteeg visite yi nga xam ne doon nañ ko fi def bu njëkk ba doon ñëw di xool usine yooyu mais tey bi ñu ñëwee. dafa tombé contexte bi ñuy wax comment euh, dire la maladie di Covid 19 mu tey muy feebar boo xam ne dafa lëmbi askan wi euh, dal fi ñu dal ñu bëree bëri fii ba tax na tey ñu ne dañuy dañuy dañuy ñëw tey sees Ibrahima Macodou Fall euh, pour mu lancer wu ci production wu masque yi ñu mën a jàppale askan wi comme ni ko son excellence de président Macky Sall bëggee ngir ñu aar askan wi ci feebar bi nga xam ne mooy mooy coronavirus. ñu commandé fi nag 200000 masques. te ñu ngi jëm après dañuy commandé waat 500000 masques jëm ba 1 million de masques pour jàppale NSTS mu mën a relancer wu bu ko defee textile bi mën a mën a avancé wu mën a avancé wu jëm Ibrahima Macodou Fall directeur général bu euh, nouvelle société textile du euh, Sénégal dellu nag daal di rafetlu euh, taxawaay bi jëwriñ di ñu dénk wàllu industrie am foofee ca société bile leneen la mu ca dolli mooy lii di nouvelle société du textile du Sénégal fas yéene nag. gën a door ak liggéeyam ngir fas yéene jàppale askanu Thiès rawatina ci wàllu xëy ay doom ba tey ci micro Adama Ndiaye ñu teewlu ko. que ministre bi daf fi ñëw ñaari yoon bii mu ñaareelu yoon di ñëw di seet nu nu taxawee fii ci usine bi loolu marque d'attention la ak intérêt bu mu porté ci société bi parce que xam na lu muy représenté ci biir Thiès loolu man ngi ko ciy gërëm di ko sant mu dolli ci nag di ma jàppale. di ma jàppalee pour que liggéey bi tegu ci yoon maa ngi ko ciy sant NSS nag d'accord filature bi doxul gisage bi doxul ñu ngi ciy liggéey pour que yooyu yëpp dox parce que suñuy suñu volonté mooy yëpp di dox ñuy defar fil bi teg ci tissu bi ñaw loolu la ñu bëgg def te loolu ministre bi wane na volonté pour jàppale na loolu la yoon boobu la nekk Comaset nag entreprise bu nu taxawaloon la depuis 2015 xaalis bi ci boppam dañ ko bàyyi woon ca banque ba depuis 2015 mu ngi nelaw mois de mars nag la ñu décidé démarrer ko bi ñu décidé démarrer ko nag par mbir mi am te ñu gis ne sunu état soxla na ay masques en tant que en tant que industriel engagé pour son pays ma ne nag naa jóg. looloo tax ma ne donc ñu démarrer par production de masque ba pare nag continuer ak li nga xam ne moo taxoon lu sànc société euh, Talla Sylla maire bu Thiès ville dellu ci nag dellusiwaat ginnaaw tukkib nemmeeku bi li euh, mu dellu rek xam na ne lii di nouvelle société textile du Sénégal moom rek moo fas yéene génn Thiès ci guuta gi nga xam ne ci la dugg rawatina jox ndaw ñu ay xëy euh, te loolee dina nekk lu mucc ayib ay kàddoom ba tey ñu teewlu ko ñun dañuy sant yàlla bu baax a di wax ne ci jamono ji nga xam ne mbas mi dugg na ci àdduna dugg Afrique dugg Sénégal ba egsi suñu dëkk bi euh, su fekkee ne ministre de l'industrie di Moustapha Diop mi di suñu xarit euh, daf ñëw tey ji dafa jaar ñu dalal benn euh, ñaareel bi mu jëm si di seet si suñu beneen xarit di Ibrahima Codou Fall bi de di ko seet si fii ci NSTS ba pare li ko fi indi bokk ci lu yëkkati Thiès parce que Thiès dafa am ñaar yoo xam ne Euh, fii di NSTS te nekkoon STS bu njëkk ak raay bi ñaar yooyu ku leen bàyyi bàyyi Thiès ku leen jàpp jàpp Thiès donc bu fekkee ne tey moom dafa ñëw fii lëkkaloo ak moom euh, euh, pour yëkkati NSTS mais rawatina ci jamono mbas mi ñu nekk pour defar fi ay masque masque yoo xam ne fii lañ koy defaree ñun lool du mën lu dul rafetlu loolu nag ñu ngi ko ciy gërëm tey jaarale ci moom gërëm goo xam ne président de la république moom moo ko moom ndax xam nañ ni ci jamono bii nu nekk ci fi jëm. am ay masque farata la yéen seen bopp xam ngeen ne ñi ngi nekkoon ci liggéey bu jëm ci euh, ñaari téeméeri junni ak juróom fukki junni masque yu ñu doon defar lu ci biir Thiès bi su ci loolu dolli ko euh, defe naa ni dina am solo pour Thiès mais dina am solo tamit pour Sénégal euh, ñu dellu wax ci leneen ak kàdduk monseigneur André Guèye évêque bu Thiès yëkkati nag ay kàddu ginnaaw bi nga xam ne rek Euh, président de la république def na ab euh, discours à la nation ci taxawaay bi nga xam ne rek xëy na euh, moom la ñu jël nag ci lieu de culte yi moom moo monseigneur André Guèye ginnaaw communiqué bi mu génn daal di rek xam ne ne ñoom nga xam ne ñoo di évêques yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom daanaka benn rassemblement yi nga xam ne rek dañ ko interdiroon ci loole la ñu nekk ba léegi am tegguñu si benn yoon. Euh, tànk la ko waral nag mooy gën a xeex lii di jàngoroy coronavirus fii ci diwaanu Thiès euh, tax na nag muy woo ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci jàngo bi suñu mbokk catholique yi euh, ngir ñu sàmmanteeg décision bi nga xam ne rek lii di évêque bu Thiès daal dina koy jël. ñu wutali euh, ba tey euh, fële ca garage bu Thiès foofee nag xam nga ñi nga xam ne ñoo di regroupement bi ëmb euh, chauffeurs yi nekk foofe daanaka jamono ji mer ba futtu la ñu def la ko waral mooy ndimbal li waroon a jóge ci état jëm ci seeni loxo daanaka ay weer ak weer a ngi nii ak lu teg ba léegi jotuñu dara tax nag ñu nekk ci ak njàqare dellu rek ñaan président de la république ginnaaw bi nga xam ne daal nay dakkal lii di transport inter urbain bi ngir mu jàppale ñoom woy yi ndax ab diir a ngi nii daal gisuñu dara te daanaka jamono ji seen lëpp daal di tegat tembe tax daal ñuy uh, sàkku ci njiitu réew mi ngi mu uh, geesu leen ñu jeexale xibaar yi fële ca r jàpp Daaru Salaam ak siin foofe nag askan wa fa ne daanaka benn say la ñu def ngir fas yéene jàmmaarloog lii di feebaru coronavirus bàjjanu gox euh, ICP ak chef de quartier ya fa ne ndaw ñi ñoom ñëpp ñu daal di den benn say euh, ngir rek fas yéene euh, jàmmaarloog lii di Covid 19 mbir mu nu mel nag ñu daal di koy xamle ngir rek woo ñi nga xam ne ñoo dëkkee ca gox gox bële ngir ñoom ñëpp ñu daal di dugal seen loxo ci loolu seeni i kàddu ñu teewlu. teewlu ci micro Thiès Info. dafa am lu waa Daaru Salaam ak waa Ersan ba Siin lu toll ci ñetti quartier ñoom ñoo booleel seen bopp boole xale yi boole étudiants yi boole imaam yi boole bàjjenu gox yi boole relais yi boole ñëpp pour laan pour lii nga xam ne moo xew ci jamono donte ñu ngi leen ciy dimbale ñoom ñu taxaw ñoom itam ndax dañ ne ndimbal na ca fekk loxol borom. ñi ko daje mbooloo mi dañoo wax ne. dañoo jóg pour lii ñu doon def muy xeex ci wàllu euh, lii xew nga xam ne yàlla dogal mooy ab feebar te feebarkat bu xewee dañ ne kenn ku ne nga jóg sa matuwaay bokk na ci première ngànnaay masque yii ñu xam ñu ngi koy joxe bokk na ci ngànnaay yi bokk na ci xeex ba lii may def sama loxo daa bokk ci xeex bi moom itam lii may def sama loxo da cee bokk muy ñaar muy masque yi ak lii di sel on se dit que nous sommes dans le monde des grands ensembles pourquoi ne ñu boole li nga xam ne mooy force vive yi nekk fii ñu dajaloo pour mën a def quelque chose de concret ci la ñu woowee les ASC yi nga xam ne ñoo nekk dans la zone y a huit ASC entre Ersan Darou Salam Nimzat Chine ñu woo ñëpp woo association de femmes yi fi ne woo les jeunes impliqué ci les postes de santé les ICP les présidents de comité de gestion ci santé bi ñoom ñëpp ñu boole leen ci pour que mu mun a am benn impact muy xeex boo xam ne xeex bu am solo lay doon par rapport au Covid. lañu war a gën a mën a takkuwaat ne pas baisser les bras gën a xeex jàkkaarloog mbir mi. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi tukkee woon ci xibaar ki leen ko doon faram-fàccee di seen mbokk Ahmadou Ly ma feggoo nag abu ci wàllu caméra bi jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.